mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëwaat ak yéen ci ay accusation yoo xamante ni waykat bi di Aby Ndour yëkkati na ko teg ko ci kaw architecte bi di Pierre Goudiaby Atépa Aby Ndour di rakk ci Youssou Ndour ab vidéo bu gudd la dal di posté ci page Facebook am di ci def ay révélation yu doy waar ko ci ki nga xamante ni moo di Pierre Goudiaby Atépa di ab architecte waaye di ab homme politique bu ñu sukkandikoo ci Aby nag kii di Pierre Goudiaby Atépa daf ko doon def ay avance sexuelle maanaam daf ko bëggoon a tëddee ginnaaw bi nga xamante ni kii di abindoor dafa bëggoon jël ab biwet daat koy def foofee ca corniche west ba ngir tàmbali fa ab liggéeyam bu ñu sukkandikoo ci waykat bi nag Pierre Goudiaby Atépa dem na ba naan ko su nangoo sax mu daat koy jëndal ab restaurant ak appartement ca wetu porte du millénaire waykat bi nag nee na loolee la koy firndeel moo di jot na ko woo téléphone di ko wax wax yu mel noonee Aby Ndour mi ndey mbill gi dañ leen di bàyyi rek ngeen teewlu ko ci ay leeral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 lépp lu mag amoon vidéo bi képp ku ko seetaan na nga jaar ci corniche bi lépp li nga xamante ni am naa ko lépp li nga xamante ni jéem naa ko ginnaaw accusation yu doy waar yu waykat bi di Aby Ndour nag ki nga xamante ni moo di Pierre Goudiaby Atépa sàkku na ci ay avocat ñu dal di porter plainte ci nu mu gën a gaawee moom Pierre Goudiaby Atépa nag xamle na ni du yëy ci mbir mi mu jàppe ni ay accusation yu ñàkk fayda la yoo xamante ni ay kàcc rek moo ko lal homme d'affaires bi nag wala sax homme politique bi moom xamle na ni dina offrir ki nga xamante ni moo di Aby Ndour quatre miroirs waaye nag beneen mbir boo xamante ni xamle na ko nee ginnaaw plant bi dina def kéemtulaay kàttanam ba retracé appel téléphonique yi nga xamante ni Aby Ndour wax na séq na ko ak moom ngir indi ci ay yeneen i leeral fii la ñuy yem ak yéen Tactic TV dina leen toppal mbir mi ba fa mu mën di yam indil leen ci ay leeral jërë ngeen jëf